asalaamaaleykum sama gaay yi céréal frais teel ma del si waa sama gaay naka nu mu fa demee yéen ngi kuulan jaar nañu bu baax a baax a baax naka mu ngi si jàmm bu baax ok ngeen jéggal ma nag bu fekkee sama baax dafa suuf xam nga rek mënuma si kaw fi ma nekk la mais bon comme nu ngeen ko gisee si titre bi rek comme d'habitude sama gaay yi dama leen a bëggoon a wan comme ça. messenger nooy liire maanaam maanaam message yi nga am si facebook saa nga am messenger maanaam application bi saa nga am ko nan ngay liire message yi nga am si facebook bii nii léegi léegi man am naa ko mais dama leen wan beneen facette bi quoi noonu koy defee mais balaa boobu dama laa bëggoon wax ko saa ngi abonné quoi si chaîne bi parce naa ni si jàppee mais bu fekkee abonné go abonné c'est gratuit quoi abonnement bi ñu jàpp si gën maa boo xam ma gën a dem ma gën a mën def vidéo yi muy def ok sama gars yi ok kon xam naa dina mujj ñëw rek dem si tutoriel bi ok sama gars ok léegi pour nga def ko avant tout doo dem si Facebook normal non non doo ñëw si application bi da ñëw si Google Chrome yaa xam Google Chrome nga wala foo mën a jaar rek ko dem si internet navigateur baax na même bii baax na bii la Apple may utilise bee nag man la Apple may utilise ok gis nga fii boo xoolee sama compte la mais bon si biir euh, internet bi la quoi bokkut ak si euh, si biir euh, application bi moo gën a efficace mais bon pour def lii léegi boo gisee fii moom mooy Messenger. pour lire say message mais gis nga ma bëggee dugg day bañ man xam naa code bi nag bokkul sama gars yi jéggal leen xam naa ay code ak affaire yooyu moom dina gis nga fii nii la la indi mu yóbbu ma parce que dama ko am moo yow bi ko amagul fii la la indi na ñoo xam ne nii dañuy am téléphone kaa fees amul espace yooyu yëpp day xew quoi moo tax gars yi duñ ko am wala même boo amee espace daal bëggoo koo télécharger xam léegi boo ko bëggee liir nii ngay def mu ngi fii gis nañ benn message bu ñu bëgg a lire xamul ne nii ngay def ok léegi nii ngay def da ngay wàcc nga dem fii nii fii ñetti tomb yi nekk nii ci kaw nga waxam ne ci paramètre bi léegi nga dem ci ñetti tomb bi fii ci kaw fi réglage bi ne quoi loolu moom tàmm ngeen ko gisee moom. Ingolidir White favori a un grupo se va a interesarse más tras de la paz a suceder al écran de Kir. Aprender en fin version pour ordinateur ok ñun tey bii moo ñu soxal version pour ordinateur maanaam téléphone bi taxaw taxawaayu ordinateur ok ok cliquer boo xoolee day mel ni am na benn. benn cadre bu nekk ci wet bi nii pour nga kose ko quoi ñu kose ko xool takk gis nga boo ko kosee nii la lay indi version ordinateur ñi nga xam ne ni ñoom ordinateur xam nañ li ma lii mooy version ordinateur bi ordinateur bi boo si ñëwee rek danga ko gis fee boo ko gisee nga këri ko ko gis nga dalay yóbbu si message directement nga mën a nga mën a liir sa affaire liir gars yi xam nga dama si bañ a dugg mais après nga liir gars yi après soo lire da nga mën a répondre tamit xam xara ok léegi fii nii boo fi duggee après di nga mën a gis nga votre message pour répondre quoi xam nga après boo répondre bu répondre waatee moom tamit yow tamit di nga mën a répondre waat quoi mais doo mën a def nag vocal quoi nga doo mën a def vocal ok ok sama gars yi yaakaar naa vidéo bi tey loolu kese te te xam te leer na ok bu fekkee am na loo xam ne nii leeru la si wala ma vidéo boo xam ne nii bëgg nga ñu def ko sama gars yi wàcce leen fii si commentaire yi te ngeen pouce bu la te xam partage ko après ngeen abonné bu fekkee abonné nga ngir yàlla te ngeen ibbi cloche bi quoi parce pour information yi di leen ñëwal quoi fa xam nga su ma dugalee vidéo notification bi di leen ñëwal parce que daf may mel daf may wax ni bëri na si ñoo xam ne nii ubbi noonu affaire boobu quoi pour notification yi pour sama vidéo yi di leen ñëwal ci sama abonné yi il faut ngeen ubbi ko pour lu ma dugal rek ngeen jot ok sama gars yi vidéo tay bi yaakaar naa loolu kese la woon merci xam nga jàpp leen si sama gars yi ngeen abone moo xaar den ko pan pan pan prr